waaw ah. mu ngi ci màggalam yooyu le daal ak cantam yu ak sabaalam yu ne ci buur bi nga xam ni saddoo man di samawaati wala tasbihan jamila subhaana wallahi waqaa rabu samawati baynahuma bi azil qasar lépp moom moom dara desul subhaana man jëlaani tasbih wa tanzil kullu si jëlaani da jëlaali zalil sunu mu ne sunu sell buur ba nga xam ni màgg na mooy tasbih ci nilal wa tamsil ak misaal kenn wax ni yàlla ak di waniroo wax ni yàlla nii la mel kenn wax dara ah ndax lépp loo xam ni mi ngi ci sab xol yàlla wute naag loolu de kullu ma yaxtaru bil baali fa allahu bi xilaafi dalika shahid wa anna allaha taala gayru mustabahin bi zawaati wa zaati hum gayru la yàlla mel kullu ma yaxtaru baal fa bi xilaafi dalika lépp lu ne xoot sa xol la nga ni ndax xëy na yàlla sa wattul noonu la mel yàlla wute naag loola ci lépp wute naag la lépp wax nga wax loolu yàlla du mu lu ñuy nirale ci jëmm déedéet yàlla jëmmam jaa jëmu diwa niroo déedéet kenn ko wax te itam jëmmam itam du mu lu ñu yuqoolal walli si melo jëmm ji damaa mi melo hmm. zaatu wa sifaat zaatu wa sifaat yëpp am na ko hmm. ne kullu fi jalaalin ne yëpp boro màgg zalilun inda jalalihi ndax lu waay am moo la ko jox kala ñaagalee pële loolu moo tax yéen wala yéen a wax ku la ñaag moo la pële waxuma laa mu faf li bind boole ca jox la ay yëpp kon nag ba walbati ko nag ne ko maag yow a de dëkk naa la bëre amaan na xëy na de waaw summi ba nga seet wecc rek faf sànni fële waaw diggante abo yesidal faf mu ko ne radiyallahu taala yàlla mën na ma fexe ba sa sa jaam yi ma wan leen sa mbaax yow xam ne du yàgg-yàgg kenn dootu ñu dem safara mu ne ko waaw man nga xëy na mën naa mën naa la ko may waaye mën na maa fexe ba ba ba loo dootoon loo ba loo doon dootoo doon dara loo doonoon rek dootoo doon dara may mën naa ko fexe ba jaam ñi doo ci ñu la xool soo ko mën a dindi nuyu dañuy dem seen yoon rek aa gaa ñu baax ñooñu le waaw waaw moo doon si daasmaalik yooyu maa fi jibbati illallah ak yëpp dañ koy wax damaa yenu yàlla ak yëpp daañu ko di wax waaye yëpp seen euh, sutox yooyu la ñuy def sax terewul ñu ni du tere boo liggéey di ñàkk lu mu wàññi ci seen martaba lëf waaw <laughs> ah. ah. ahmadu ahlul hamdi wal kamal dëgg la de moom rek ah, borom boo xam ne borom ndax lu waaye mat matit da nga motti ko fi barab hmm. wa ashkuru shukra si toloroon irtihaal mais wa uwaxiduhu ne maa ngi koy wéetal moom yàlla yaata nag ne bëgg na koo yéet wéet bëgg naa koo wéetal zaatan ci jëmm kullu shay'in haalikun illa wajha waaw wa sifatan bëgg naa koo wéetal ci melo kama ramayta ramayta walakin allaha ramee walladi awsala ramya wa fi'lan ma weetal ko itam ba tey ci jëf wallahu xalaqakum ma taamaloon ba yaf naa summa yaf naa summa yaf naa ba kaana fanaa wa nel baqaay waaw waaw jeex tàkk dootuñ si lu dul jëmm ja jeex tàkk jëf jëfam itam meloom itam fa tabaraka allahu nga jeex tàkk itam ci jëfam a yaf naa summa yaf naa summa yaf naa ba kaana fanaa wa nel baqaay الفناء والفناء توحيد من wéetalu ka nga xam ne danaa ko wéetal wéetalu ka nga xam ne lam yara du ko du gis la waññeel ko du ko gisal kufuwan ab nawle wala mislan du caageen kam kem yàlla amul kem qul wallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad nekk lu ko naat mu jeex kenn doxal ba gis ko ba am loolu ahadun allahu samad lam yalid walam yulad laa budda kay nga am ci benn walam yatrukuhu an ahad ah balaa fekk kon kay xanaa nu ma la nekk naa leen fekk moo mboog muy bind nuy bind mbaa mu bind nu bind ko waaye moom amul dara li laa solihi waaw ah kooku te mënu koo leen fen jalla an wasfil waasifin déedéet wa an tazakkurin mutazakkirin déedéet zahir ak baatin dara bàyyi noonu rek ah wasalaatu wasalaamu ala nabii shahiq rabten buri boobule sallallahu taala alayhi wa sallam alladi alladi ixtaara inda almawti ala alrafiq allahuma alrafiq ala binasbi alrafiq ay axtaaru aw uridu wa huwa sallallahu sallam اختار مرافقة أهل السماء am la waxoon وعلى آله وصحبه الفقراء المهاجرين الأهل والأوطان نيرتاسين بركة والذين تبوؤوا الدار والإيمان تفسير أهمالي رضي الله تعالى عنه القرآن lu gën a bare daal am naa danañu di wax firi waaye ne xam naa lu gën bare taawil daal ndaxte boo xamee ni benn baat bu nekk xëy na ñu ci indi sax ñaar fukki maana boobu xaw di taawil la waaw sagaane nekk daal danañ ci deen di seen mbir xaddal seen yëf at tafsiru ñenn ñi dañuy wax ne at tafsiru huwa alwuqufu ala asbaabi nuzuli wa sha'niha wa qadiyatiha wa la yajuzu illa bissamaa هو الوقوف على أسباب نزول الآية وشأنها وقضيتها ولا يجوز إلا بالسماع والتأويل ما يرجع في كشفه إلى معنى الكلمة وتلخيصه ما يرجع في كشفه إلى معنى الكلمة وتلخيصه وقيل التفسير ما يتعلق بالرواية والتأويل ما يتعلق بالدراية waaw wuyu talaqayal mu tafsiri ala ma yaumuhuma ñu fal wax ne rek tafsir tawil dugg ci biir moo tax mu ne tabawa u daara wal iman ay nasalul medinata ana tamakkanu fiha aw tabawa u daara alhijrati wa daara aliman aw tabawa u daara wa axlasu aliman ما تساجلت الأطيار على أغصان الأحجار الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبير من ليس له طمأنينة ولا قرار إلا بذكر الملك الغفار قال جل من قائل كل ما سواه إليه عائل ألا بذكر الله تطمئن القلوب فمن هم ليس له طمأنينة ولا قرار إلا بذكر الملك الغفار ألا بذكر الله تطمئن القلوب سبحانه وتعالى من قال بذكر الله تزداد الذنوب ma loolu sunu yoon a nga jàm zikrillahi tazdaadu zunuubu wa tanfamisul basaayiru wal quluubu xanaa gaañoo daal gaañoo gaañoo nekkati boo fi de ñi nee ñu baa baadul aarifina la ñi nee ne ibnul farida nag kon nu ma xam ne sunu yoon nekk ci sax li annahu zikr wa zakir wal mastur ngir dangadul mën a ñàkk a bokkaale ah, te moom dafa nangu kenn ku ko bokkaale li annahu zikr wa zakir wal mastur mastur mi rek la soxla ah dana néew nag koo xam ne xëy na dana tudd yàlla te gisul boppam ah gisul tur wa itam te dañoo bëgg moom mi mastur rek moom yàlla rek nga xam ne moom rek ah bañ caa boole leneen bañ caa boole sa bopp bañ caa boole tur wi waaw nga jeex tàkk daal foofu foofu nag ruq gaañu la daal loolu bara na fa lool lakinahu qalilin min ibadihi shakur waaw ndax wa qalilun min ibadihi shakur alfarqu bayna alshakiri walshakur alshakiru mooy kan alladi yashkuru ala almawjud حكم الشاكر والشكور الذي يشكر على المفقود wute nañu martaba de ñaari nguru ak benn nguru loolu nag ah mbaa bi xasanaat alwaraasiyaat almuqarrabin ashakiru boo ñaanee yàlla mu may nga sant ko lool boo ñaanee yàlla mayu la nga jàpp sa doo sant bi ashakur nag keroog bu ko yàlla gënee xañ keroog la gën a sant bu ñaanee yàlla may ko mu sant bu ko ñaanee may ko it mu sant rek waaw wala yaskural maxuut affaire yi sukkur nag bala nañ mbir lool la na ah waaw maa ngi yi dafa xaw nag mbaa bi xasanaat al raasiyaat al muqarrabin waaw foofu martaba yu wute ndaa bi xasanaatul abraar sayyi'aatul muqarrabin gaa ñu leen wax ne mooy ñaari mburu ak benn mburu waaw lu tolloo yow moo xam ne da ngaa am ñaari mburu nga yëkkati ma joxe tabaarkalla def nga lu baax waaye la nga def it sayyi'atu ci amul lu may benn mburu fab ko joxe wala martaba yoo wute kooku boo tegloo mbër fi moom ah yàq na sa mbër ndaa bi xasanatul ala sayyiatul muqarrabin xasana la def waaye sayyiatul ci ci qarrabin muqarrabin kenn nu xamul seen sabab الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه إليه من الموضوع الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه إليه أكجافه te jafe aka tuut aka jafe ah maa ngi naaj daal allahu akbar allahu akbar allahu akbar alhamdulilah kay subhana rabbika tawasila jalla wa ala ulwan jalila nema sabaha arradu bihamdih walmalaikatu min xiifatih muy yooyu yëpp yàlla di ko def rek amin wa maa xusiya al aasiqan wa kafaani taarruki al aarifoon ngaa ñi nga xam ne bu ñu toogee ci nen du toj kafa an taharruki al aarifoon al aarifoon an taharruk hmm.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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا يسبحه من في السماوات والأرض تسبيحا جميلا سبحانه هو الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار سبحان من جل عن التشبيه والتمثيل في جلال عند جلاله الجليل أحمده وهو أهل الحمد والكمال وأشكره شكر ذي تبرع واللغات وتعرض لصفات الكمال والجمال وأوحده ذاتا وصفة وفعلا توحيد من لم ير له كفوا ولا مثلا جل عن وصف الواسفين وعن تذكر المتذكرين والصلاة والسلام على النبي الشفيق الذي اختار عند الموت على الرفيق وعلى آله وصحبه الفقراء المهاجرين الأهل والأوطان والذين تبوأوا الدار والإيمان ما تساجلت الأديار على أغصان الأشجار الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبير من ليس له طمأنينة ولا قرار إلا بذكر الملك الغفار قال جل من قائل كل ما سواه إليه عائل ألا بذكر الله تطمئن القلوب سبحانه تصديق من قال بذكر الله تزداد الذنوب لأنه الذكر والذاكر والمذكور لكنه قليل من عباده الشكور الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا جل وعلا علوا جليلا ما صبر الرعد بحمده والملائكة من خيبته فما غشي العاتقون وانكف عن التحرك العارفون سبحان محيربي وتقديس لسواه ثم الجلال وتنزع عن سوائب النقص والحدود والزوال